so maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp lu oxa Sénégal ak oxa na Gambie lu oxu Gambie oxa Sénégal wax dëgg yàlla fu bakkan daano nit waru wax dafa am waaye dama dama leen di xamal le gis nga àddina loo gis rek da xool lu ko waral yéen Sénégal yéen ngi wax da di lijjanti seen waaji ci waxu mandat bi dafa war a toog wala dafa war a dem waaye léegi boo xoolee loolu ak man suma suma ka est-ce que nu rawul man dama waxoon ne damay toog ñu ne déjanti ma ne doo toog so because ñu dem élection hey ñu foxati suma ndam jox ko nelaw biñ ko joxee nelaw nelaw hey nelaw su nelaw sa because yéen Sénégal yéen a ngi lijjanti affaire troisième mandat waaye ñun war nañu lijjanti affaire nelaw ndax nelaw dama ragal ne bi mu nekkee am na lu ñuy wax juuxoom juuxoom dafay nekk ci dex lay nekk waa Ndar xam nañ ko juuxoom dafay nekk ci xeer yi dafay am ay tànka am tànka yi am lu mel ne karaw mu am këlla këla bi am na loo lekka boo ko lekka foo toog nelaw yéen Sénégal problème mu troisième so moom ngeen di lijjanti waaye ñun Gambia ñun problème mu nelaw nañu lijjanti ndax nelaw su àdduna bi waxee dañuy tase Gambie pour def conférence because waxtaan affaire u àdduna so mun na nekk affaire u jigéen affaire sida mun na nekk affaire droit de so moom ne yow bu commencé dis bu keneen déggee discours moom xaran na moom ne yow ah. barki démba maa ngi ko gis ci benn because mu ngi dem ci dëj so mu ngi jaale ñooñu tontu ko mu nelaw <laughs> moom nelaw so because ren d' Angleterre bi ñoom yónnee nañ faa ndaaw pour ku changer ambassade bi because pour keneen ñoo toog foofu kooku def discours moom mu tontu ko après mu ne la moom ne la so bu fekkee ne njiit njiitu réew dafay tasante ay jawriñ yi waxtaan conseil des ministres bu ñëpp ñëwee moom bu xasee ba wax ñoon di tontu moom yow bu ñu lay fal. yow dafoo campagne gëmmentu ah. kon bu ñu lu tax nga nelaw. moom nelaw. tudduma tuur de. <laughs> li nga xam ne moo am. so because ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal foofu. ci armée bi naka ñoom xanaa du ñu ñibbi. am na lu leen doy. ndax bu fekkee ne Gambie da doon takka ñoom ñuy ñëw indi fa armée bi mu taxaw foofu pour xool nelaw. nelaw xam nga lu tax muy nelaw xelam moo daal barki damay jaay suma benn waaye nee ma yeya mm-hmm. ma ne ko ah mu ne ma xoolal waa dafa am benn buur maka moo fa yónnee nit koo xam ne moo nekk ministre affaires étrangères mm-hmm. soo kooku ñëw di def discours mu commencé nelaw yéen Sénégal troisième mandat ngeen waa Gambie ñu ngi lijjanti. neelaw. moom dama amul lan moo tax muy. neelaw. te biñ ko falee koon pour muy. neelaw. moom dafay gëmëntu. li daal Sénégal la maa ngi koy jaale ñaba. yéene wu ko Sénégal. waaye gis nga àdduna. du nii. am wax ñaanu ko. parce que Sénégal bu takkee Gambia dafay takka. te man damay demaat Gambie pour jël suma place waaw waaw dégg ñu may waaj a waaye buñ ma attewul fii équatorial gine suñ ma yóbbee beneen réew mooy xam ngeen di ngeen yaaya oh. parce que am na ñoo xam ne gis man la ñuy bañ surtout ma ki nga ne dañ ko fal mooy dëkka boo ci nekkee ñëpp a war xool la nga war a ak nit ñi parce que boo nelawee. nit ñi war wax ak yow. boo waxee ba pare commencé. nelaw. man kan mooy nela. lu tax man duma tudd turam. parce que bugguma ngeen xalaat wara ne damay tooñ. Mm-hmm. waaye buñ la falee. Mm-hmm. ba xel dal. Mm-hmm. xanaa yow da ngay lakk ba suur rek tëdd. waaw moom président bi nga am ne. adduna ñëpp waa nañ ne moom li toogee. dafa def soxati. élection nañu dem. because waa CEDEAO yambar yi nga xam ne ay yambar nañu ñoo ñoo ne ma yow da ngay génn sa ñu day fal ki nga xam ne buñ fa toogee ba tey mu ngi. nelaw yéen loolu di lijjanti Sénégal troisième mandat. waaw ñun waa Gambie xam nga lu ñu lijjanti. Ah. borom. nelaw yaa yaa ñibisil ñibisil Gambie la ñibisil. ah ma ñëw.